nekk xale yuy représenté Sénégal le drapeau Sénégal di ko représenté fu vraiment un Baye di deretu Baye amul góor jigéen mourid Sadix amul góor jigéen sama askan amul góor jigéen bugguma góor jigéen donc pourquoi ñu bëgg jël débat bi concentré ko ci man non on n'est pas fou et je suis vraiment j'en ai vraiment marre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 sénégalais la kilifa la yàlla def na ko même sax bu ma ko liggéeyut suñu borom def na ma ko ci dëkk bi laa dëkk buñ ma tax li fi jàll dafa bare non dafa nag li fi jàll dafa bare te ba léegi kenn déggoo ma wax maa ngi jàpp sama ñàmbur muy neex muy yi maa ngi téye sama ñàmbur dëgg la actuellement aw ma way suñ yàlla rek laa desee mais duma nangou ma nangu ku ma saay-saay buñ ñemee nañ ma affronter man nañ ma affronter ci suñu kalam li def suñu liggéey wala ñu affronter ma ci neneen mais buñu jaar ci sénégalais yi pour dima ma ci kaw sénégalais yi pour am li bëgg non non non les sénégalais ne sont pas fous et c'est dangereux ngal la je suis victime qu'ils n'ont qu'à arrêter man bëgguma góor jigéen sama askan amul góor jigéen ab Baay Faal bi doon góor jigéen je gère ma famille j'ai trois gosses am suma jabar takk ko ci farata ak sunna yor askan ma ni ils n'ont qu'à arrêter je suis pas content et ils n'ont qu'à arrêter te nag am na ci ñu ma ràññee dinaa ko wax j'ai pas cité le nom am na ci ñu ma ràññee ceux qui sont derrière waaye ñaar ñi ñoom